assalamualaikum sak internet maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax tay maa ngi fii ci deux voies liberté 6 defena gis nga lu nek sama ginaaw L'Amour Café bu nek restaurant bu bes tak tay ma war fi dalal ko xamantene c'est un handicapé c'est une personne à mobilité réduite sax lay wax parce que dañu amputé tankam tay nek le 15 août di anniversaire bis bu ñu amputé won tankam mu def 3 ans tay ma dalal ko war waxtan ak mom isa nañ dem xol mohammed musiba fexeel di ko yéene lu baax bu la nit ki yéene musiba fexeel di ko yéene lu baax ba yàlla nekkul la manda Mohamed le grand jantal maa ngi lay ziar di la nuyu jaajëf Baye Fall naka mu lépp jaam waaye maa ngi sant bu baax maa ngi sant alhamdulilah journée bi waaye ça va ça va ça va mu journée boo xam aussi xam voilà ça me rappelle plein de souvenirs euh, neex na neexul parce que tey la sama choc am 3 ans donc du coup euh, ça va être un peu difficile genre de le gérer tey moom ah tey moom dina sant yàlla. waaw ah, comme ni nga ko waxee rek sant yàlla bu baax mais Mohamed avant de ñëwaat si. le film Muhammad de l'accident et tout ça dama bëgg ñu waxtaan un peu parce que y avait une autre vie bo xamante mom nga nekkon fa lay démarrer mais moy tay suma la xone kan moy Mouhamed Mbaye la nga moy tontu. bon Mouhamed Mbaye de moy ko xamni ni la fañ VIP talibé Serigne Touba. Mhm. Euh, man Serigne Touba rek ma ñor Serigne Saliou ba Abdou Karim Mbacke kessé ñoo ma ñor waaw. xëy na li nekk ci man ñoom ñoo ko def ci man. dëgg parce que góor yàlla moom mooy ki nga xamante ni tey jii nii ku mën a dundee nattu koo xamante ni maanaam day dund yàlla teg ko nattu mu mën a jaayante loolu mooy dëgg-dëgg Baye Fall te ñooñu ay Baye Fall yu mag lañu ndax dañoo yenu àdduna maanaam boo déggee naan yenu àdduna mooy dañoo yenu ñi ne ci àdduna muy taalibi Serigne Touba yi fi ne ci dëkk bi voilà quoi mu loo tax ma def ñooñu référence te di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk seen taxawaay quoi. Mohamed. sa enfance fan nga juddoo fan nga yaroo nan nga defee sa enfance. bon <laughs> man j'étais un très terrible. <laughs> voilà quoi xëy na ni ma ni ma activé woon bi ma nekkee xale moo ma gën a boosté pour ma gën a tey jaayante quoi euh, maa ngi dëkk Thiès. Mhm. foofu la sama famille nekkee tout Dakar dama fi ñëw pour liggéey quoi. Mhm. sama famille tout ñoom ñëpp ñu ngi Thiès. tu mhm. vois waaw voilà je suis natif de Thiès waaw fa laa juddoo fa laa yaroo Dakar dama fi ñëw pour job. et enfance bu euh, euh, enfant bu terrible terrible nga woon comme ni nga ko waxee à l'école comment ça a été ban ban niveau ban niveau nga arrêté tout ça. bon jàng naa ba première.

Euh, nek ci business bu tu vois après voilà par la suite deux ans après ci l'as ma dal maa arrêté de la force 2015 après 2017 ci la accidenté quoi tey la def trois ans sax ah dañuy ñëwaat un peu si accident bi Mohamed comme ni nga fait, xam nga avant bu bu bu xaw terrible nga avons et avant ngay def accident bi ci lan nga nekkoon est-ce que da nga nekkoon ci ay ci ay ci ay dawal moto wala ci lan nga nekkoon ba nga xamante ne moo la moo la fekk si baloolu loolu fekk si la muy accident bi quoi. bon avant ma def accident bi waaw ci moto sax laa defee accident le 15 août 2017. Mhm. tey la def trois ans ma ci gën a dolliwaat sant suñu boroom bu baax tey wax ni voilà man. am na loo xam ni waaw noo ma frégé woon soo mënuma mënuma ma mënu ma ñeente quoi ay tànk bu ñu dagg moom pour man du dara quoi tang buñ dag du dara ci man. mais dara la lu metti la parce que fi ngay tok du joy kenn du ko que accident bi nan la est-ce que mën nga ñëwaat ci film accident bi du début à la fin. Euh, da ngay retracer un peu le film de l'accident du début à la fin comme ça ñu comprendre quoi. <laughs> bon le 15 août le matin yewuna xama après ma dem vaguer sama occupation euh, le soir ma euh, Euh, ay heures yi heures yi pas le soir ay heures yi ma dem ci sama benn xarit boo xamante ni parce que dama doon dressé ay xaj il m'a appelé le matin pour ma diir que ni ba xam mën naa ko dressel ma ne ko am problème pas de léegi ma dem dressel ko ba pare après ci laa dem sama kër benn xarit fi ma dëkkoon maa ngi koy nuyu de passage yaayam euh, yaay Amadou Kourma voilà fa laa dem fa laa añee ak sama xarit yeeg yëpp après ma dem ñibbi suma kër noppalu dem saal jóge saal dem sangou après sama yaay yónni quoi may nuyu sama yaay aussi de passage wallahi lazim yaay joo xam ne fay parce que c'est une femme qui a beaucoup galéré quoi mu doon yaay bo xamantene dal daal mënu ko qualifier dëgg la kenn du wax sa yaay ni moy moo gën yaay kenn waye sama yaay bokku na ci ñi fi gën parce que tey jii ni xëy na bu dul woon moom li mu galéré man du ma am jomu tey wala courage u tey jaayante ci sama live pour mën cee génn parce que dafa am lu ma warloog moom ma koy war koo def tu vois après noonu mu yónni ma pour ma yóbbul ko nat bi ma génnee noonu même pas de chez moi après fa la accidenté voilà mu doon loo xamante ni aussi yàlla dimbaliwaat ma bi ma accidenté ñi ma wër ñëpp dañ ma xam parce que ci koñ bi laa dëkkoon sama wetu kër la accidenté mm-hmm. buntu Madiba Fama maa ngi koy nuyu de passage aussi Euh, buntu Madiba Resto fala accidenté am ay taxaway yalla dimbali ma après ñu yob mo hôpital jour 15 août c'était le 15 août 2017. Mhm. comme ni nga ko waxee. sa accident bi c'était le 15 août 2017. ça fait 3 ans yaa ngi koy yaa koy koy mais Mohamed ba nga fait l'accident, nga nek euh à l'hôpital nga ñëw médecin yi ne la Mohamed dañu wara amputé sa tank bi. lan nga njëkk xalaat nan nga dundee loolu noonu moment yooyu. bon man sama amputation du ma ci ŋàññi kenn euh, du benn médecin moo ñëw proposé ma amputation man ma proposé amputation parce que euh, li may wax chaque jour rek euh, méttit yàlla nañ ci yàlla musal parce que doon na loo xamante ni baaxul quoi méttit baaxul baaxul voilà quoi doon na loo xamante ni lu metti la. man maa proposé pour ñu amputé ma parce que li ma doon yëg xëy na man ak yàlla rek ko xam toog naa affaire yi metti xam nga tout le temps may dund métit boo xamante ni mënu ma ko qualifier ba sam papa sax daf leen ni woon voilà quoi tànk bi faj leen ko affaire yi noonu kenn du ko amputé man ma nekk di kii ba benn jour dama naroon xaru parce que li ma doon yëg dafa metti man leen pour ñu amputé ma ñu bañ benn jour ci laa naroon xaru quoi après gars yi xam ne tànk bi mu commencé di nécroser ñu yóbbu ma amputé ma. tànk bi dafa dafa damone wala dafa amoon ay waaw bi dafa amoon triple fracture ouverte quoi ay ay tojut tojut yo xamanteni ni voilà quoi c'est yu metti quoi voilà. ndeysaan comme niñ ko déggee mu nek affaire bo xamanteni ni franchement lu lu metti la lu triste la mais man dama ko nawlo et bëri say morom parce que mohamed dafa nek ko xamanteni ni il est très courageux depuis lors mu ngi koy gérer di dund ak mom et avec une joie de vivre bo xamanteni c'est inqualifiable ken mënu ko qualifier Mohamed brama maa ci yoyep yooyu yëpp dama bëgg ñu ñëw ci après nga génnee à l'hôpital après l'accident. bon man moom tes amis xam la famille nan lañ la accueillir nan nga dundee ak ak ak ak ñi nga doon àndal ñu né sama xarit bi tay jii nii ndogal dal nako est-ce que amna ñu xamanteni xamante leen après loolu noonu yoyep yëpp dama bëgg nga ñëwaat si bon. Euh, euh, amputation voilà wala manam voilà wala natou bu dal adam di comme ni pour un début tu vois mais après amna na à maintenir, euh, genre c'est à toi de le gérer bima génné bima au hôpital au contraire au lieu que nit ñi ñëw di soulager fa lañ daan ñëw ni dajji ñuy kaf di di neex waaw biti la <laughs> saf saf xam nga gars fa lañ doon ñëw ma leen di kafloo di leen reetaanloo après bi ma génnee aussi say xarit dinañ ñëw sa kër di la seet loolu moom voilà quoi daan nañ ñëw sama kër di ma seet et tout ma koy dund ak ñoom nice mais après am un moment donné xam nga Sénégal dafa am lu fi ne du question de nit ñi dañu bon mais maanaam dañuy xëy tal seen bopp parce que réew mi dafa metti genre ñi doon gis après nit ñi dañu xam nga ngay di dund yow parce que pour un début on ñu mais après voilà c'est à toi de gérer ça quoi tu vis seul man je vivais seul nek suma ruk japp suma je do gis kenn tok suma kër ba suñu kër mon ci bir kër gi ci kaw la ci terrasse fa aménagé mhm. man kessé ma fa dekk sama lek ak lepp may fekk moy mhm. tok xama période bobu nak suis génné hôpital ay un mois après j'ai galéré sama tank biñ dag ma mhm. mais après voilà quoi may sant yàlla bu baax delluwaat sama xel si suñu boroom. xam ni am na ñoo xamante ni tey am nañ fi lu dul jeex te maanaam seen i cër matul. wala am nañ waaye ay waay laago lañ wala dara. xam nga di gërëm aussi waale Seck bu baax barke Rasulullah parce que dafa am son boo xam dama ko daan déglu tout le euh, son boobu lu ma lu ma gën a defar ci àdduna la quoi son boobu lu ma gën a defar ci àdduna la barke borom Touba. Wally Seck maa koy encore remercier de passage. te di ko wax ni ko yàlla na ko defal quoi parce qu'il mérite mérité trop. voilà comme nous ma ko waxee rek je pense que mon euh, boy booy wax courage si si si si le la que bah. Tant plus comme ni ma ko waxee moom mi ngi hôpital ñëw gars yi war ko defal mon muy dajji gars quoi Lolo. dafa dafa neex Mohamed mii dafa neex Lolo. ci moi la nek, mais Mohamed. si loolu laay ñëw on a vu que euh, da ngay nekk snap da ngay nekk da ngay nekk whatsapp si sato yi et di bigal doomu doomu doomu aadama yi loolu noonu dafa nekk loo xamante ni on a vu que da nekk koo xamante ni une personne à mobilité réduite. tey yow lañu waroon di la reetaan loolu di la bégal mais yow yaay wëlbatiku au contraire di defal loolu jàmm yàlla yi nan ngay nan ngay nan ngay nan ngay def ba ba ba ba am joie de vivre boobu noonu. bon euh, li nga wax dafa am solo. L'État parle du bon français. Une personne à mobilité réduite. Man lola, duma, duma, duma handicapé. Man, je me prends pour une personne à mobilité réduite, mais pas un handicapé. C'est parce que euh, madame, li na ci man newul ci kenn de lu graw la lay wax. non ciao, deug la. <laughs> barki Serigne Saliou du lu may ndamo mhm. mais li na ci man newul ci kenn. te deug deug Baye Fall moy man barki alcorane deug la parce que wax naa ko sànq Baye Fall bala nga ko don deug maanaam suñ borom dalaa teg pour natt la te tey xam nga tey jii ku dem tey ba li yow li la dal metteetu la ngay bégal sa bopp bay bégal ñoo xamante ne tey jii nii ñu ngi lay gis yow ci réseaux sociaux yi wala di la gis di la kontaane wala nga leen di dolli courage tey suba rek laa ko dugal sama statut ba ci ay tubaab tubaab dañ may message naan tey suba la ma ci kenn message ni ma genre dañ ko amputé mais man maa tax moom moom joie de vivre de comprendre nga ba ci ay tubaab laa la wax mm-hmm. xam nga man maa leen man maay tax ñuy am joie de vivre xam ma mhm. man maa leen di jàppale ci lu bari ci gëm-gëm. parce que fii moom àdduna fii Sénégal gii muy Sénégal di Afrique di àdduna. Mhm. lu ma waay jaay safuma loolu moom dama koy wax <laughs> lu ma waay mën a jaay fii ci réew mii safuma ndax xam naa ne bu dee gëm-gëm barki alxuraan maa la ko ëpp dafa yombul yombul. c'est pas pour rien tey jii nii ngay gis ku ñu dagg tànkam mu gedd àdduna toog këram. Mhm. parce neexul. c'est pas pour rien mais tay ji nak kiñ dag tankam tay la sama accident am ñetti at ñetti at man ñu bari dañuy fogg dama ko juddu walé te pourtant juddu walé tay ñetti at ci tay nga doon ba nit ñi def la référence ngay delo ci nit suñu borom man yalla lay ligéyal barki alcorane karim non lool mom c'est vrai parce que non man yalla lay ligéyal man wu suñu borom la mo mhm. yabal fi may wax ak yow de ndeysane <laughs> parce que ku delo ci nit suñu borom koku koku am ta am fayu nit sax fayu yalla lay am deug la yeah rawal Mohamed billaahi yow mom defe naa képp ku xol rek amna amna ben yegge benn mi am ci ci ci ci ci ni nga frier xama ci ni nga ni nga ni nga ofé ak ni ngay ni ngay bëggalee doomu aadama yi mais Mohamed damay tem damay dem ci benen point. sur téléphone. on a vu aussi que on a on a vu aussi que yow euh euh mannequin nga. et je pense que c'est la première fois ñu gis. mannequin bo xamanteni day défiler ak ak ak ak ak ak prothèse nan nga duggee ci mannequinat et ba ci si aussi déjà nan nga duggee ci mannequinat d'abord wala foofu laa njëkk a ñëw. bon mannequin lo xamanteni la daan nako def auparavant mais je l'ai juste fait un an. bi ma doog a ñëw fii Dakar di jang après sam yaay di casse ma ci la ko bàyyi. parce que moom genre mannequinat bi mosu ko neex quoi et tout ba ci la bàyyi mannequinat bi mais après par la suite genre je euh, suis lii dalee ma man gëm pourquoi pas man je fais quelque chose d'exceptionnel. quoi parce que je ngi dox sama je ne suis ci soox rien après ça m'est arrivé euh, dans la tête d'aller reprendre le mannequinat tu l'as repris, voilà quoi et je me sens très bien dans ce métier maïti ngi ciy sant voilà quoi sant eh ba qui ci Mohamed est-ce que am nga un peu de bët bu la nit ñi voilà est-ce que ba ngay dugg si ba ngay mooy après après euh, ba ñu amputé si tànk. est-ce que gis nga si ay ay ay gag-gag yu la gars yi tegal wala ba nga ñëwee gars yi yaataan lañ la quoi le monde. de non Sénégal moom xam nga li fi am. Euh, maanaam euh, réew mi dafa am nu muy doxee ba pare nit ñi maanaam la majeure partie tey jii nii nii nii nii nii dañ lay bëggee mais xam Euh, voilà amna ñoo xamanteni mom moom seen ruq la ñuy di ŋàññ man j'ai pas besoin de ça soxlawuma loolu encore une fois de plus et je suis très méchant avec ça. bañ na ko ba nit bu commenter sama dara di ma wax lu mo tax. Manam mm-hmm. bu ma amee contact dama lay wo, te bu ma la wooyee ba mut na la wax lo xam musiba la. Mhm. parce que li ne ci man kenn defu ko ci man. dëgg la maa ko cherchel sama bopp maa ko créel sama bopp sama courage maa ko am du benn doomu aadama. Mhm. je commence ci fi ma juddoo du amul kenn du pap du papa du yaay du xarit du kenn ku def courage bi ne ci man. dëgg la. man maa ko sàkkul sama bopp maa ko def ci man donc du ma nangu kenn di ma ci critiquer li ma saf loolu laay def. Mhm. keneen ku mu saful jubalal ba caaka njaay <laughs> asalaam <laughs> li ma saf loolu laay def barki borom Touba li ma saf piir loolu laay def lii bégal sama xol man. loolu laay def parce que sénégalais mën nañ la kii nii et mais c'est pas tey jii nii ñi lii dal ñëpp ñu toog seen kër gedd àdduna du du du loo xamante ni lu ñuy comporté wu ak yow la. du luñ lay wan di la ko def pour nga toog sa kër wala nga gedd àdduna mhm. mais ni ñuy dundee ak yow. ni ngay gisee ñuy dundee ak waay laago yi. Mhm. moo tax tey ku am laago tey mu dab la surtout. Mhm. da ngay gedd àdduna toog sa kër parce que nit ñi ci boppam ñoo doy waar. nit ñi si boppam boo dégloo rek dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay kii quoi dañ lay déstabiliser. man j'ai pas besoin de ça soxlawu ma loolu. Mhm. soxlawu ma loolu. sama courage kenn defu ko ci man maa ko sàkkul sama bopp donc ku am looy wax pour man loo xam da nga may ŋaañ wala dara des fois nga gis nit naan la ay li la yàlla teg danga waroon jaamu yàlla mais jaamu yàlla weesuwul ngay delloo si nit suñu borom. nit a ngi feebar ma koy delloo suñ borom mu gëm xam ne kii kat lii dal ko nii mu dab ko mu doon jeune tey bu ko neexoon metti ko nga delloo si ko suñ borom loolu jaamu yàlla da ko gën a riche. lu leer. waay yow lu leer. comme ni mu ko waxee soxlawul yenn yenn commentaires yi ay eh, defe naa war nañ ci bàyyi xel bu baax parce que nit ki defe naa moom mu am lu ko dal ba pare mu am une joie de vivre xam nga di dund comme si dara dalu ko di bëggal doomu aadama yi defe naa moom bu defee bu defee benn publication am na yeneen commentaire yi ñu war a def. lu dul di ko ŋàññi wala di ko wax loo xamante ne xam nga c'est un peu dérangeant Mohamed. Hmm? sañse bi Mohamed koo xool xam ni nante la dafa mën a sañse. Mohamed nu mu demee noonu quoi. dugg nga sama gaam. <laughs> non doo tàmm la wala doo juddu la wala nu mu demee noonu. non sañse dama ko mën. demal. non barke rasulullah sañse rek. Mhm. xool lii dafa garaaw. def <laughs> lafañ VIP rek mais dama bëgg nga décortiquer li nga sancé lafañ VIP non suma la la déclarer ni dé nga né maro bi brune bi mang ko génné ci dal bi fé xam nga deug du neex <laughs> ya wor mo ban lafañ mo sañu def short ni def ki ni ban lafañ wallahi man mako sañ manam lepp rek ci aduna rek ndimbalu suñ borom la man dama am ndimbalu serigne touba barki borom dama ko am gravement sax man ni ma amee ndimbalu sëñ Tuubaa dama ko ragal. <laughs> barki Serigne Saliou. Mohamed dafa neex ci ci ci ci ci ci toog ak moom. ba dama doon jaay yére. ah waaw damaa xam morso. xam naa loolu joué na ci quoi. damaa xam morso. Hmm. non damaa xam morso. <laughs> Mohamed Mohamed koo xool xam ni jantal la jantal meen Mohamed ak xale yu jigéen yi nu mu demee noonu. Euh, Mohamed ak lan. xale yu jigéen yi. Mohamed jantal la. waaw ah, xale jigéen yi maa ngi leen di sant di leen gërëm rek te di leen wax ni leen yàlla na leen yàlla defal jàmm. <laughs> Mohamed doo leer de. man dama am jabar. Hmm. sama jabar dama ko noppiir. Hmm. ma fam Christine rek jëlal ma lool yow. <laughs> non non man man j'aime trop ma femme. Hmm. waaw dama am dama am beneen nag barki borom Touba. Mohamed am nga fit de. loolu dama ko ragal. foo ne. j'aime trop ma femme Christine je t'aime beaucoup ma femme c'est une femme qui m'a je vais un peu parler d'elle quoi mhm. c'est une femme Madame, mais est ci est là. ci kenn là. d'accord mais gis nga du une femme blanche quand tu l'as mhm. et que tu tu vis avec des gens des trucs qui c'est dur quoi. Quand ta vie est difficile ou bien tu vis avec un handicap ou truc de ce genre, tu mm. verras qu'une femme, une femme blanche, elle n'est pas pareille que les femmes noires quoi. Parce que nous sommes seniorement de guerre, ta fille. Sénégal, si nous sommes seniorement de femme qui de guerre. Tu as aidé avec elle euh, avant ou après ce accident Non, après cet accident, ça m'a dit que ben défilé lañ xamanté. Mm-hmm. Wallahi l'azim. Mu doon nit ko ni parce que tu nga gis nga man li tax dundé xëy na nit du yool du yoole boppam sax te du yoole sax li tax tey jii nii may hésité bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa beneen bëgg naa beneen mais hmm, voilà quoi dama gisagul lu ma doy ma gisee rek dugg ci lool bi te la fanaan <laughs> boo gisee loo doy rek dugg si. <laughs> Mohamed eh, on a vu aussi que yow tamit dangay ngay da nekk si affaire affaire automobile mhm. pense bien que am na benn am na benn parking boo boo boo nekk. Mhm. Mohamed loolu noonu man bu ma ko gisee ngay def ak la mannequinat xama ak yeneen business yi ngay dóor man damay bëgg damay kontaan parce que damay damay damay damay gën a ñaaxaat sama bopp parce que bu ñu demee ba ku koo xamante ni moom. benn tànk la yor muy góorgóorlu xam nga di teg ay business di teg ay affaire bëri nga ci morom la jeunesse war nañ gën a mën a góorgóorlu parce que moom mu ngi mu ngi mu ngi góorgóorlu franchement Mohamed business nan lay demee da ngay da ngay gérer les business xam nga ak ak ak ak ak l' accident xam nga est-ce que mus na la mus na la mus na la mus nga dund loo xamante ni sa liggéey c'est par rapport ak sa accident et tout ça ak sport bi ngay def aussi loolu yëpp dama bëgg ñu waxtaan si parce que temps bu ñu desee bëriwul comme ça ñu avancer quoi. bon sport bi. Salbe, salbe, salle bi may entraîné mhm. ci kanam na bon sport bi damay entretenir sama yaram aussi un mannequin aussi dafa wara entretenir yaramam bopam xam nga may à chaque fois aussi pour euleuk parce que bo amé amputation amna âge bo xam boko amé rek profite toi xam nga nga sa yaram parce que euh, bon, demee ba nek mat après pour dox ak da fay metti wala nga utiliser sa prothèse fay metti xam nga boo boo boo da ngay teel a rey sa yaram quoi si tu fais pas de sport moo tax yéen ñi nga xamante ni lii daf leen dal day leen consacré genre ngeen di def tuuti sport parce que dafa baax sport bi baax na ci parce que bu lu ngeen gën a jëm après sport bi daf leen di téye comprendre nga man j'ai toujours été sportif jusqu'à présent je suis sportif donc day leen def un peu de sport dina baax ci yéen ku ci bëgg def sport aussi man boo ma contacter mën naa ñëw ba sa kër dina defal exercice et tout gratuitement voilà mom man luma leni aussi je suis conférencier damay dem ci hôpitaux yi. Mhm. ñi xam dañ leen di amputé. Mhm. ñu bess sen tank bu damay dem tout le temps di waxtaan ak mhm. aussi encore yeen ñi nga xamanteni tay ku ci am amputation am sa membre de bu am amputation wala dara man boma wowe bu mënul amul moral bi wallahi azim boma ñewé je wowe dina ñew di waxtaan ak mom ba muy parce que def ko ak ay nit yu def naa ko ay nit yu bari bari. Eh, conférencier bi nga nekk. Mhm. da nga en collaboration avec l'État du Sénégal wala yenn hôpitaux yi wala nan lay demee. bon Voilà. état wallaahi soxla naa seen ndimbal trop parce que dafa am lu ma bëgg def pour les personnes à mobilité réduite au Sénégal. Mhm. ak ñi nga xam ont am handicap Sénégal. surtout les personnes à mobilité réduite. Mhm. Madame ñi nga xam ne ñoom la dal dab wala genre affaire yooyu quoi am na loo xamante bëgg naa ko def ak ñoom te damay ñaan état ngir yàlla ak yonent bu ñu ma mënee dimbali. Mhm. ñu dimbali ma quoi. parce que soxla naa seen dimbal. waxal fii li nga soxla. ñu bëri dañ naan jabar tubaab la am mais jabar tubaab jabar soxna soxna la tey koo fi takkoon doomam boo yoree àddina ak li ci biir du dangay jël xaalis boobu di ko lekk moo ko liggéey xaalisam la. bu jabar tubaab moo tax tey nit di tekki soxna soxna la rek état Sénégal bu ñu ma mënee dimbali. maa wo ministry ministre yi maa maire yi maa ngi woo di remercier sam ben papa bu ñuy wax euh, Abdoulaye Diop mu ngi dekk euh, cité Sonatel sam papa la Abdoulaye Diop monsieur le maire xama tak sama yaay aussi gas Ndong ñom ñoo ñom la nekkal fi Dakar ñoy sama tuteur ñu ngi may jappalé bu baax di remercier sama xarit yi surtout jigen ñi quoi wallahi sama ami Facebook yi jigen ñi xama ñi may suivre ci réseaux sociaux yéen ñëpp sama xarit yi nga xamantene tout le temps may déggante ak ñom ñu ngi may message xam nga maa ngi siyaar ñëpp mënu fi lim parce que dama bëri ay xameel dama bëri ay xarit c'est vrai ci man sama sama amitié bi bi genre ñi ma nekkal xarit ñep légui mu dëgg légui ñep Facebook laa leen xamee wala ci réseaux sociaux yi. Mohamed on aura le temps xam nga pour les remerciements et tout ça. Mhm. parce que dese ñaar question yoo xamante ne il ma mu poser la ko. la première mooy Mohamed lan nga dund après ton accident loo xamante ni moo la gën a naqari saaduna ak lu la gën a neex saaduna. bon li ma gën a dund ma gën ma naqari sama sama sama après sama accident mooy euh, benn jour dama dama liggéeyi wàcc. boobu may jaay fëgg jaay. Mhm. après euh, ma wax sam benn xarit ñooy liggéeyandoo ma ni ko doomu abal 1000 francs ma paas bi parce que juro affaire bi doxul quoi njaay mi doxul. si mu ni ma. non yow lafañ nga ko da war a toog seen kër yaa ngi ñëw fi di di solal jaayoo bàyyi woo. nit ñaa ngi jaay pardon mais jaayoo ma ne ko lan mooy déplacer nit kër kër mu ne ma waaye du taxi ngay waaj jël ni ma ne ko d'accord. ma ne ko fii ak déwén dina am oto huit maa lañ ci teg ma jënd oto te maa ko jënd sama bopp boobu ma sama jabar. Mhm. te ñu bari dañoo foog ne tey oto yi may yor wala dara sama jabar maa ko jënd sama bopp sama protège maa ko liggéey maa ko jëndal sama bopp maa ngi remercier sama benn bàjjen bu ñuy wax Ndey a Mbay sama bàjjen day mam mam Tukuleur an mari mbay bàjjen yaay sala xama ñom ñoom sama samay papa lañ. Mhm. di remercier sama wajur encore une fois plus sam papa aw ma fayam. Mhm. maa ngi koy remercier bu baax samay wajur sama yaay surtout. Mhm. parce que sama yaay jambar la jigen bu nango son la ci àddunaam. te loolu moma ñaax moy gor gor parce que sama yaay dafa son dama ko wara téral teral. borom tuwa te mom xam nañ dinaa ko def. deug la comprendre nga di remercier sama bàjjen yëpp ñom Pierrot voilà ndey fatou mbay mhm. dama bari bàjjen nak ñom ñep ak sama papa bok ndey ak bay dañu bari <laughs> masha allah lu la gëna neex euh lima gëna neex suma aduna waaw moy tay roy kay bima don rek li dal la paré nga don roy kay ñep bëgg la ñep ñep ñep naw la ndax sa courage mhm. xam tay bëgg nañ nit ci façon bu ne ci anam bu ne mais tay man kuma bëgg tay ji ni manam ci njambarte ci gor gor lu wala ci njambarte nga ma bëgg loolu moo gën a neex ci àdduna bëgg nañ nit ndax alalam mhm. bëgg nañ nit ndax taaram bëgg nañ nit ndax jikkoom mhm. waaye man sama njàmbaarte mhm. njàmbaarte maanaam mooy la chose la plus principale ci àddunay doomu aadama dëgg la mooy njàmbaarte mooy indi loolu yëpp mooy indi xaalis mooy indi beauté mooy indi lépp mais man loolu laa am njàmbaarte ka ma bëgg rek tey sama njàmbaarte nga ma bëgg te ñi ma bëgg ñëpp maa ngi leen di est-ce que pare nga pour teg benn affaire boo xamante ni c'est pour les handicapés eh on a vu aussi amna association handicapé yu am Sénégal est-ce que am nga yow bokku est-ce que yaangi nek ak ñom di liggé ak ñom est-ce que paré nga pour def ben affaire pour ñom euh bon paré na paré na amna ko sax paré na amna ko parce que amna sama association bo xamanteni man ak sama jabar ño ci nek di ci liggéey mhm. mu ngi tudd NVH nouvelle vision de l'handicap parce que dama bëgg ñuy xolé ñam handicap ñu xolé ci benen facette mhm. ludul wara tok yalwaan taxaw ci feu rouge yalwaan wala lacc nimbal wala dara mhm. dama bëgg lool mu jeex fi ci réew mi moo genre ma créé affaire boobu non NVH nouvelle vision de l'handicap te charité bien ordonnée commence par soi-même man mi ci né man mi ko créé ak sama jabar maa ko mhm. parce que tay bo gisé mohamed Mansour mbay mu ngi nekk di défiler mu ngi ci série xama xam nga mu ngi nekk tey jii nii don humoriste mu ngi bégal nit ñi mu ngi kaf mu ngi foo mu ngi mu ngi liggéey. Mhm. ñaanul kenn tàllalul loxo kenn. Mhm. day day man damay am soxla sax wala wallahi azim ma tok samay poche dara nek ci nit du ko xam duñ ko xam parce que dañ naan manqué wu ma ko jabar tubaab maa ngi àdduna ak la ci biir. sante yalla la mooy ce mot de la fin mohamed Mbaye. bon ce mot de la fin euh, sama euh, sama jabar Christine maa ngi koy remercier de passage parce que c'est vraiment une femme exceptionnelle. Mm-hmm. bo xamanteni euh euh, elle m'encourage sur tous les côtés. Ce matin, elle s'est levée, elle a, mis beaucoup de publications sur moi. parce que accident, elle est trois jours. Mais depuis hier, elle est en train de me, consoler. Non, c'est normal que tu sois ainsi. Parce que c'est le jour où tu avais fait ton accident et tout. Merci, Madame Baye. Je te remercie énormément. Voilà. Amna aussi ay yo dañ may toppatoo di di di di xam nga di def ci man lu ne maa ngi leen di remercier yéen ñëpp kenn ku ci nekk xam nga sa bopp maa ngi leen di remercier di leen jaajëfal te di leen wax ni leen kontaan trop ci yéen quoi comprendre nga. Mhm. di remercier samay waajur encore une fois de plus. di remercier sama bopp parce que man moom nee xaw ma lan lañ ko waxee ci wolof booy xaw ma lan na commencé ci yow <laughs> man moom. maa ngi noonu Lafagne VIP. Lafagne VIP Mohamed. waaw dëgg du neex. barke yàlla ma dama laa bëgg. parce que da ngaa da ngaa da am loo xamante ni dafa nekk si yow. Eh, non taxawal loolu par force la da nga may bëgg par force. man kuy kulli Baay Faal boo ma gisee da nga may bëgg. dafa loolu par force la man boo doonee góor yàlla dëgg boo ma gisee da mooy may bëgg. Mm-hmm. barki borom Touba par force. maa ngi lay maa lay encouragé di la di la di la di la souhaité xam nga bonne continuation si affaire yi nga nekk eh, c' était euh, avec Mouhamed Mbaye xam nga mannequin gentleman. Eh, dafa am ku ma bëggoon remercier. <laughs> ñëwal. non maa ngi remercier sama papa Alioune Seck. yana mhm. ay Seck Alioune Seck bu waale. ak kan. waaye remercier Waly Seck bu baax sama xarit sama doom ndey sama grand nit ki parce que gis nga Waly nit ku baax la quoi parce que nit ki boo koy tiitaroo rek mhm. ak moom fi mu toll ci àdduna mhm. mais mu jël lafañ bu xeebuwul bii boo xam ne du dara mu koy tiitaroo Waly aw ma fayam tabaski bi passé moo ma jox xar te duma la lu ko ñaan du dara bokk naa ci moom mu ngi koy def mu woo ma ni ma kaay jël sa xar. ndeysaan jërëjëf xar mi ma may lekk naa ko rees naa ak jàmm man ak suñu waa kër. ndeysaan non Wally Seck sax gis nañ mooy seen soirée boobu noonu grand théâtre moom tamit joxe na message bu am solo foofu kenn du moom. billaahi Wally Seck lool moom rek ko fi def. tëgg soirée pour tous les handicapés du Sénégal. wallaahi ba pare imposer maire yeeg ñi fa nekkoon ñëpp. maanaam ñi fa nekkoon di liggéey ci ci ci ci gouvernement bi yëpp mu gars yi misé. bokkut ak fond bi mais gars yi génne xaalis mu cotisé leen ba mu njëkk a teg. gars yi génne ku ne génne ba somme bi nekk douze millions et quelque mu may ko handicapé ba pare bokkul ak recette recette soirée bi. wallaahi Wally Seck Wally Seck sa waay missionnaire la. missionnaire la wallaahi lazim ku ko bañ déggoo ma da ngay gaañu léegi. <laughs> lii lu garaaw laa leen waale gis nga yow ku la bañ ma suul sama ndey day gaañu léegi. léegi nii du yàgg yow ku la bañ day gaañu. <laughs> yow kenn day yow. dafa neex walaay xam nga Mohamed maa ngi lay remercier bu baax a baax mais Mohamed dafa am lu ma tànnal samay lu ma tàmmal samay internet. mooy ñoom dama leen tàmmal lu neex kaf ak ree. waaw boo doon artiste. artiste nga sax day am loo may may mais Mohamed la nga may may lépp wala lu neex loo xamante ni da moo koy nettali xam nga mu doon lu neex daal. waaw. <laughs> neex. <laughs> bu la neexee fecc aussi. non fecc <laughs> daa tàng gis nga sànq ba léegi maa mais sant yàlla daal. léewal léewal Mohamed. ma lépp waaw benn affaire bu neex rek. wala benn anecdote bu neex. waaw lii kii benn benn kii la woon benn non sam benn tataa la woon. Mhm. sam bàjjen la de. Mhm. mais daa teel a bàyyi jàng. léegi wujj bi nak dafa jang ba ba sori trop ci jang légui tout le temps wujj day xulloog ji. Euh. ba ben jour fajar mom mu yam ci di ji. Mhm. mu rek mu commencé nan yow mu ñom may affaire ko mais je moi je m'adresse pas à toi tu fermes ta gueule mais c'est quoi ces histoires mais va te faire foutre je hmm? parle avec mon mari et tout mu toog ba si yàgg wujj bi commencé di ko xas yëf yi soof ko rek <laughs> mu xool xoolaat daal man lan la nee na moom muy xool ci xel mi lan la mujj jàng école. Mhm. loo xam ne mën na ko français la mën na koo làkk pour déstabiliser wujj bi rek tàcc ko. Mhm. Afrique mon Afrique. Eh. <laughs> Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. ni ko Afrique de ah, ni ko Afrique chante ma grammaire au bord de son fleuve lointain. Ah, donc <laughs> <laughs> non kii dafa neex. foofu laa ko yemale. kay à la prochaine merci beaucoup.